Thank you. daraja yu kawe yi léegi nag dama leen di wax nuyoo bi su ma compter ba trois ngeen xam ni Macky Sall day jóg nuyu leen un deux maxane yi maxane yi maxane yi maxane yi maxane yi maxane yi mbay ana laman laman gis li ñu def li ñu def tey ma bëggoon nga dem bu dugg très rapidement ki Tëngéej ñor ki fonk Tëngéej boppam alors kon ku ne xam na ne tey lii ñu gis fii ci Tëngéej malgré le fait malgré que boulevard Maurice Guèye fay xaar ak feneen ak feneen cela montre que cette ville historique la ville de Mame Lamba eh bien, à voter pour la continuation du plan Sénégal émergent. de Rufisque jërëjëf de li ma de a wax ginnaaw santé de leen dans la vieille ville celle-là qui fait partie des quatre communes qui déjà en 1872 fii érigé en commune de plein exercice kon ñëw na dëkk cosaan Tëngéej dëkk cosaan dëkku ada ak dëkku caada Tëngéej dëkku xam-xam waaye Tëngéej dëkku politique kon maa ngi bëgg a nuyu doomu Tëngéej yëpp yi fi teew waaye balaa sore dañaa jaaree beneen doomu tëngéej bu mag bu fi jógee lu yàggul muy Karim Séga Diouf yaakaar naa këram sorewu fi bu doon de football ku bokk ci développement football ci biir Sénégal def nañ minute de prière pour suñu xarit papa si nijaay si muy maître Mbaye Jacques Diop ko c'était mon ami c'était un grand homme qui a incarné fils dans sa splendeur Comme ñaar ñooñu laa bëggoon rendre hommage d'abord à nuyu responsable les grands responsables politiques de ñëwaat ci li ma bëggoon wax rek mooy Tëngéej bokk na tey ci département yi incarné émergence économique et sociale yàlla def na sama vision bi gën a rafet bi mandargal l'avenir du Sénégal ci Tëngéej laa ko tàmbalee mooy le pôle urbain de Diamniadio ñi seen gis-gis gàtt seen xam-xam gàtt nee nañu sama action jam ñaajo la yem xëy na demuñu Casamance wala bu ñu dem dañu gëmm seen bët yi bu ñu jël autoroute yi dañu gëmm seen bët yi wala ñu préféré jël mbedd suuf yi xanaa laajuñu waa kaw gi lan la ko PUDC indi laajuñu béykat yi lan leen defal laajuñu mool yi ana mool lan leen defal laajuñu étudiants yi lan leen defal ma ñu laaj askanu Sénégal dund lan laa fi def depuis 2012 ñun nag la neexee taxaw na jant amu fi waaye bu boobaa sa bopp nax sa bopp nax. senegal bi wute naag Sénégal bi ma fi fekkoon en 2012 le Sénégal de 2024 sera encore meilleur au Sénégal de 2019 parce que programme la am programme boo xam ne ay borom xam-xam ñoo ko bind programme boo xam ne man maa ko inspiré sur la base de mon expérience personnelle sama xam-xamu réew mi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Programme pour la bailleur de foyers adapté, adopté nous avons financement nous étudiant. étudiants nous avons xam nañu double les capacités d'hébergement des universités Nous avons les bourses d'étudiants nous avons les centres de formation professionnelle pour won xale yoonu liggéey parce que que moy li avenir au Sénégal DER délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes annuellement 30 milliards pour donner capacité à entreprendre loolu mooy lii au Sénégal kanam moy li dañu ma weddi li ñu def pour yeen en matière de subvention de moteur li ñu nekk pour Bargny pour le quai fukki at Bargny a ngi doon xaar aire de transformation de Ndapé le domaine agricole communautaire de Sangalkam ñoom dañoo joxe woon suuf si ma annulé boo yëpp pour taxawal le de Sangalkam pour jox xale yi liggéey Promoville Rufisque 10 km de voirie intérieure voilà l'avenir que je vous promets avenir Bobola, la bëgg ngeen 2024 2035 bàyyi ñii di wax te Même li ñuy wax mais mbir mi Sénégal le peuple est debout Mangiwa, ngi wax waa Bargny qui souffre. Nous avons trouvé le port minéralier de Barni. xam ngeen ne man président buy bàyyi ñuy askanam jamais le train express régional 60 milliards d'années de fait n'est pas impacté par le terre. donc les 500 millions de Barni seront payés d'ici la fin du mois de février pour les populations de Barnier. ñi nga xam ni ñoo nekk Ndayane ak yéen na seen xel dal port bi du leen fa jëlee dinañ toog te képp ku war a am dédommagement dinañ la ko jox ba mot sëkk barke démb laa jël mesure pour waa Jaxaay Jaxaay c'était avant moi jox leen seen i titre foncier fayal leen seen arriéré wa tay taw feex ce sera la même chose parce que j'ai une politique sociale, une politique service du peuple sénégalais. Voilà la différence. Voilà la différence entre Madame Ñoom njiit bu am yërmande xolu yërmande mooy def li ñuy def d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs lancé naa leen défi ñoo kaa leen wala bayal bu yaatoo la victoire au premier tour est inévitable et personne personne ne pourra l'empêcher Ndioro le la ministre Diouma Dieng le ministre mon frère El Ibrahim Ibrahima Sall fixe et je suis sûr que vous allez réaliser cet objectif, voire le dépasser. de la la, meeting bi daal naa fii sant yàlla te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ba tàyyi nit ñi génn nañu en masse waaye tey Tëngéej moom desul gannaaw tabarkalla tabarkalla suñu xol sedd na torop torop torop ci mobilisation bi président it bi mu ñëwee dégg nga li mu wax ñëpp ko déggandoo wax ju rafet. ay promesse boole na ko ci ay waxam te moom ku ko xam xam ne bu la diggee dara rek sàll ngaar yi da koy def xam naa ne bu ñu ko joxee deuxième mandat bi incha allahu rabbi dootuñu am dara lu ñu métti tëngeej parce que xam na li nga xam ne mooy suñu soxla tey te dina ci jóg taxaw te on peut lui faire confiance nañu fexe rek ba le 24 février incha allahu bi ñu teel a dem ci bureau vote yi woteel ko massivement mu jàll premier tour parce que nag mérité na ko te tey te ngay jiit wan nañ ko génn bi ñu génn tey wan nañu ko nekk ñun yaay suñu candidat loolu nag ku mu doyul dara du la doy mais man nag du lu ma bett bu ñuy euh, wax ci suñu liggéeyu ndey ya di seet ci jal ci jal yi nañu seet ku ne lu sa ndey liggéey ci àddina Macky Sall dafa am ñaan yàlla yu waajur ku gis monde bi ko topp bu ñu ko gisee di say loolu moo lay won ne dafa ànd ak ñaan yàlla ay waajuram te ñaan yàlla waajur du bàyyi xale mukk du bàyyi doom mukk gannaaw lu jara xalaat la lu jara def la lu daja jara sóoraale la ci suñu àddina parce que waajur dafa foor Macky affaire am du neen affaire du ñaan la léegi li nit ñi war a wax yëpp ku ne wax na fu mu dem rek wax ji benn la fu mu dem rek wax ji benn xam nga tey lu ñu lu ñu desee ñaanal ko yàlla ñu fal ko deuxième mandat yàlla oyofal ko yoon wi mu dem ba jeex ci te yàlla na ko yàlla def loolu rek moo ñu desee tey la neen desew ñoom nañ ko ñaanal yàlla ñu fekk ko ci jàmm ak salaam di leen remercier parce que seen taxawaay rafet na saa yu ma ñëwee Tëngéej kenn du dess samay mbokk samay rak samay nëba samay mak ñeppay génn samay xarit ñeppay génn gungé mo fu ma dem porte à porte yi ñu ngi and ak man gox bu ma dem ñoom itam vraiment recevoir nañ ma fu di remercier ñi nga xam aussi jox nañ ma seen carte jàppale ma ci parrainage bi di remercier aussi

يالنا نيوكو يالا ديفال تي برك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم